ngir du njëkkante waxtu bi ku ne Cheikh Bachirou Mbacké Abdoul Khadir eh, xañ na fan yi ay coow li bëri na xañ na nag ñàkk xam la wala ñenn ñi ak saboté ndax lii du fi gan ci yoon bi. <laughs> yooyu de ci woon di ci leeral sax ak wax ndax moom mi nga xam ne moom la yàlla jiital comme dem na ba xam ne àdduna noonu la baaxoo moom moo tax ba dara métteetu ci moom xam ne ne liggéey Serigne Touba du yomb comme moom dem na ba xam ne loolu noonu lay baaxoo demee rek kon moom moo tax daanaka yu ci bari jotoon na leeral waaye nag du tee kii xëy di am jotug yàq te mu jaral ko muy yàq yow mi nga xam ne danga nekk ci dëggit war na laa mën a jaral ba fu fu fu fu aw nar ñëwee ngir bëgg na bu dëgg nga taxaw leeral na li muy dëgg. te loolu fi ma ko bëgg a waxe mooy Cheikh dul Bachir sunu boroom doo ko tànn ci njabootuk sëriñ bi mu ànd nekk feek ay nawleem bokk ak waa kër sëñ Tuubaa lim bokk ak ñoom te di ko rafet di ko rafetal seen kenn tu lay kàttan dañ ne aw xas bu jugee jugee ci biir njaboot ga mm-hmm. te njaboot goog ñu gëstu leen ba xam ne ñii ci njaboot gi lañ bokk dëgg-dëgg boobaa xas woo mën nga ne war naa mën a dal waaye ko mel ne Cheikh Mamadou basiir ni mel ci njabootuk sëriñ bi ak waa kër sëriñ Tuubaa yi ni ñu ko nawloo ak fi ñu ko teg muy sagu yoonu mu di yëpp lu ne mu di ko daj bu ñu nekk ca àll ba taxawee di wax ñooñu da ngay xam ne euh, maanaam lañ doon wuti ak lañ doon sàkku daa mel na daa dem ba réer leen ñu bëkkoo ko jaaree nag foo xam ne doonu jaarukaay te loolu li ma ci mën a leeral mooy am na tari moom fi déggoon léegi. xam nga <laughs> tarim alquran moom misaal xam nga sëriñ bi daa tari ba ci yàgg mu taxaw ndax biiru biirum biirum discours tari mu sori sax dafa amatu yoon da ngay junj rek ñi am xam-xam xam ne aaya ba foofu fële fële la yem ña nga xam ne xamuñ nga leeral leen ko ci wolof. dafa mel sax moom aaya bi mu doon wax ci bàqara la nekk ci téere kaw innal lasina kafaru sawaa'un alayhim ansartuhum am lam tunsirum laa yu'minuun xatamallaahu alaa quluubihim ci loolu loon wax waaye ñoom itam dafa am ñoo xam ne nii aaya ba ñu indi ma nga nekk yaasin ci. Ah, loolu laay bëgg leeral rek xam nga fu mu ñu ko mën a indee mm-hmm. ñun suñ suñ suñ suñu référence suñu royteef mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni ko suñ borom tànnalee eh, ak dundam indi ko ci àdduna mm. lu ñu waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy mënutoon a liir <laughs> ki mënta liir xam nga ci ñu man mi mën a liir mën a mën a bind mën a jàng nga ne yonent bi moo jiite ñëpp gën ñëpp mënta liir boo dee borom xel mu gàtt nga danga naan kon yonent bi nam nañ ma bal ci kàddu gi kon xamutoon dara fekk déedéet sañ borom daa am lu mu ci doon njàngale mooy ci kiimaanu suñ borom yi ak ci euh, xareñu suñ boroom ci lay tànnee def nit lu ko soob léegi bu doon mokkal alxuraan day force boobaa it mënees na faa corriger mm-hmm. ci bu dee bu doon ku juum waaye moom daa tari ba ci ak mu taxaw yem ca loolo ngir bañ a guddal mm-hmm. jataayu waxtaan wi moom daa waaw kii nag it xëy na day day mel ne moom day jàpp ne léegi dafa am lu mu doon xeex xeex boobu sottiwut mu bëgg ko indi ci détail bale boo xoolee digloo waxtaan wi mm-hmm. foofu it daa am yu ci ay yàqu yu yu ci bëri te danañ ko indi ci biir waxtaan wi waaye sallallahu alayhi wa bi mu nekkee màkka te àndoon ak saxaba dafa am ko waxoon ne nit ki la digal dig àdduna te mënuloo lu fi dara <laughs> bu ëllëgee yowmal xiyaamit kon waroo ko faa yaakaar sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jiitaloon ci mbindee fi ah mm-hmm. te muy suñu royteef képp kuy ab jullit bi ñuy xare da nga xam ne ne leer na ko moom ab yónente la te yàlla jox na ko baatin ak kàttan loo xam ne ni mënoon naa am xeex ba bañ a mën a bañ a am ba ay ba de ci faatu ci biir ba yi am na ñu am doole am ñu néew doole kon xëy nag naan bu bu ko sooboon ci coobare suñ borom ñëpp dañuy amando Hmm? waaye ñii dañoo am ñii di ñàkk ah ñii am xam-xam lool ñii néew ko lool te terewul ñëpp ay saxaaba la am solo rek mooy pas-pas bañ booloo ànd ca di xàccundoo di doonandoo màkka pour ñi nga xam ne ne jàpp nañ ne nekk màkka jiite rek koo koy <laughs> ki gën a xam lépp ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tari alxuraan di ci jum parce que li nga xam ne ci mbirum suñ borom la suñ borom saa soo ca nekkee foofu moo lay won ne la lii nag sama cër la moo tax fi ne ni eh, damay leeral ne même même tari di gàkk sax dañoo xamul rek waaye tari di gàkk sax moom da du dara tudd suñ borom yii nga xam ne ni maam suñ borom a ko jago alxuraan bokk ci mbirum suñ borom képp ku koy tari suñ borom dana la won ne lii sama yëfa te xam nga lan moo bon tari alxuraan di ko yàq heureusement it ka doon tontu gis nga fa mu jëmit yàlla yi dag fa waroon ne ak maandu la kii samay kàddu lay wax samay kàddu nag ku ciy wax mën nga caa réer misaal samay kàddu ku ciy wax mën nga caa réer comme nag moom moo moom moom sëñ bi daa indi eh, dem ci bàqara moom mu dem ci yaasin ñaari yoon yu bokkut la kon moom na xam ne foofu yàlla am na lu mu fa wonale am njàngale kon ab julli day maandu moo tax Cheikh Mamadou Basir eh, nañ ko bàyyi na ko yàlla def rek te ñun ñi nga xam ne am nañ ko muy ñun murid yi xam nañ fi mu ñu féete xam nañ lim ñu jariñ ku xamul nag toogal jàpp sa njàmbur waaw ndax loolu xam nga li tax ñu koy wax ñun ku de nekkut ak moom mënoo koo xam wax naa ne bokk na ci ñi ëpp démocratie ci ci ci ñi may ñi may ñi may jaxasool wala ñi may fréquenté maanaam nit ko am démocratie ne moom moom yombut nga koy gis ñi nit muy koo xam ne dana xam ne yow sa xol fii nga ko jëmale misaal te du ca waxtaan ak yow du ca jëm yow jëm ak yow du ca du la ca laaj dara